ngir dooleel ministère bu éducation nationale fondation UBI bi amal seeni juróom-ñaareel édition bu concours national de la dissertation jox ay ndaw yi gagné concours yi 18 bourses ngir ñu mën a jàng ci université africain yi waaye tamit ak 72 ordinateurs ñi demoon final ca loole ay ndaw yu bëri di dem defi concours bi édition bu 2019 di ko firndeel. Depuis le début de cette aventure au Sénégal, en la fondation UBA ci atum 2013 la ñu décidé ngir jàppale ministère bu éducation nationale fondation UBA joxe na lauréat yi 18 bourses ngir ñu mën a jàng ci université africain yi waaye ñu jox ñi dem final 72 ordinateur ca loole ndaw yu bëri di ñëw def concours bi concours bu 2019 di ko firndeel. En atteste l'édition qui a vu la participation de plus de 2000 candidats. jury bi nag di ñaawlu ñàkkum liir élèves internet bi waral ak seeni ñàkkum dégg tubaab ca loole rafetlu projet fondation bi. nous saluons déjà la programme bi nag ñëw ci waxtoom ci jamono bi ñu seetlu ndaw yu bari di bàyyi liir waaye déggatuñu tubaab ca loole ñuy rafetlu projet bi. oriente son choix dans le cadre de son RSE sur un programme aussi pertinent. nous ne faisons moom nag muy wax ba léegi bourse yi dina jàppale ndaw yi rawatina ñi néew doole. avec euh, cette option. des bourses tey nag xale yi di xaar concours bi ndaxte lii di tax ñuy am bourse mu doon lu am solo doon lu leen di motive rawatina ñi néew doole. où nous sommes encore beaucoup S doon lu ñu gën a jox gëdd. ci kaw littérature lauréate bi di ko ñaawlu te muy wax ndaw ñi ñuy liir. ici au Sénégal. série S moom la ñu gën a jox gëdd euh, ci kaw euh, littérature may wax euh, ndongo yi ñu farataal liir ndaxte sama benn jàngalekat daawoon na ma wax liir lu am solo la te tey fi ma toll ma jàpp ni lu mu wax doon dégg bu kenn dul werante budget fondation bi ci projet Afrique li toll ci dix-neuf millions de francs CFA. concours bi dina tax ñuy tester ndaw ñi ci wàllum bind programme boobu nag dina tax ñuy joxe ay téere ci lekkool yi.